yàlla ko def. ku sori ci man. waaw gis nañ Tuubaa. la xam ne ba léegi. jërëjëf Mbacke jërëjëf. ci doxinu adduna nag. moom adduna moom yàlla ko sàkkal ba ko doxin bi itam. Mm-hmm. lépp moo biir doxin woowu nag. ma am ci ci yow nii li fi tolluwaay bii. fekk ma amoon ci yow ñaari gis-gis. waaw bu njëkk bi. Mm-hmm. yow da ngaa sori man. Ah, jërëjëf Mbacke ngir Serigne ah. goo xam ne eh, boo sañoon sax da ngay nekkal Sénégal gépp. waaw ah, bañ a fi nekk ci sa taal bi. nekk ci sa jëfe sa xam-xam. nekk ci yoonu jub. Mm-hmm. nekkal peuple bi yëpp. jërëjëf loolu mooy sama yére ci yow. jërëjëf moom boobu gis-gis boobu. laa gis ci yow. waaw jàpp mooy sax. Mm-hmm. ngay def parti politique ak yooyu yëpp dëgg la. dara néew ci ay amul yaraanga ndax yëngutu adduna la te yàlla ko defee noonu te in fokk yàlla am ñu ci ba bàyyi ñu di ci yëngutu loolu moom duñ ci ñàkk waaye man ni ma la li ma gis ci yow li ma li ma li ma la gisee sama gis-gis ci yow ci na ma ko na ma ko bëggee woon moo di rek yow nga nekk di ma dikk ñaan taal Sëñ sa xam-xam bi nga xam ne yaa ko sàkkul sa bopp yàlla def na ko ànd sa jikko ji nga xam ne yàlla la ko bindee ànd sa xel loolu doy na ay jumtuwaay yu yóbbu nit ci kanam. jërëjëf Mbacke dégg nga wax bi dégg naa ko Mbacke bu baax dégg naa ko bu baax Mbacke dégg nga bu baax dégg naa ko bu baax Mbacke dégg loolu mooy sama yéen ci yow moom laa gis ci yow gisuma leneen leneen lu ma si gis itam dégguma la ci benn yaraan jërëjëf Mbacke ay moom dara néew ci ndax da def sawar ci ko rek waaw jërëjëf jërëjëf dégg nga wax bi